et e, e, e, hélas par rapport à ça nga wax ko léegi l'état n'a pas compris li nga xam ni moom la artistes yi di liggéey rawatina fii ci biir réew mais beneen problème bi mooy est-ce que aussi les artistes ñoom xam nañu seen valeur matador parce que mm-hmm. des fois on a tendance à bu artiste bi li muy def ci spectacle yi nga wax yooyu moom na dem. créer benn spectacle am peut-être demander benn soutien truc de ce genre après voilà mais est-ce que carrément moom xam na ce qui représente pour pouvoir bu tegee dara sur la balance mu mën a mu mën a jur quelque chose parce que si si bu fekkee nit ki amul jëlu la au sérieux c'est c'est peut-être ni ngay ñëwee ci moom moo tax non parce que euh, nekk nañ ci dëkk boo xam ne tamit euh, vraiment neexu la wax on naa beaucoup d'artistes mais est-ce que ñëpp ay artistes ça c' est des questions qu'on doit parce que euh, tamit li koy régler mooy li doon wax statut bi ñu ko affaire boobu taxee c'est l'état il faut que ñu xam kan mooy kan ci biir mbir mi maintenant euh, mënuñu mënuñu maas ñun ni quoi on a des artistes respectés au Sénégal hyper respectés que que nous les artistes on les respecte d'abord on se respecte entre nous am nañu xam nañu respect bi quoi. Mhm. donc par rapport ak population bi aussi xam nañu yan artistes ñan jox nañ leen cër. Mhm. ñun les vrais artistes cër bi ñu war a am jox nañ leen ko quoi même la l' état il sait les artistes xam naa ñi xam nañ ñi sérieux ak ñi sérieux wul mhm. donc maintenant nous concernant ñoom ils vont essayer de faire. Euh, li leen arrange parce que quand c'est une si c'est une musique qui dérange la système il feront tout pour euh, mu euh, euh fragiliser bi leen di déranger ça on a compris ça et c'est pourquoi aussi voilà ñun xam nañu comment on va fonctionner ak ñoom mais loolu moo ñu gën a indil gàllankoor parce que dañu jàpp ni on est là parce qu'ils ont connu Matador en tant que rappeur waa BMG engagé. Mhm. et ça c' quelqu'un koo xam ni il faut pas qu'il soit euh, qui qu'on lui donne les moyens ou quoi parce que voilà il est anti-système ou je ne sais pas quoi alors que derrière là c'est l'artiste quoi mais derrière avec Africulture ce que je, y a, y a, qu'on fait c'est l'État qui devait le faire mhm. et surtout dans la banlieue ce que Mala fait à j ces attaques qu'ils devaient faire, on récupère pas mal de jeunes. C'est des bombes à retardement qu'on a dans ce pays. Mmh. Ce matin même, on en parlait. Mmh. Il y a une génération là, entre, qui est entre 17, 18, 19, jusqu'à 25 ans là. Ces, jeunes-là, si on ne pense pas à, à leur euh, avenir, si on ne pense pas, à, si on ne trouve pas des solutions pour ces jeunes-là, d'ici quelques années, nous savons que ces boys-là, c' est des vraies bombes à retardement et c' te duñ leen mën hmm? donc ñun on ne peut que li ñuy def dans la musique souvent l'État devait plus nous écouter parce que dañ leen alerter on est tout le temps dans la rue on est en contact avec ces jeunes là ils ont ils arrêtent très tôt l'école souvent parce que défaut de moyens mm-hmm. ou mmh. ils ne croient plus à l'éducation du su bëri mm-hmm. deuxièmement ils ont troisièmement ils ont de l'énergie voilà dañu am dañu sawar parce que ay ndaw lañu dañu am voilà am nañ kartan am nañu kartan <laughs> sa am nañ cawarte mhm. te defuñu dara joxuñu leen dara lu ñu def mhm. et ils ont beaucoup de temps c'est ça qu'on a euh, vraiment dans la banlieue surtout et un peu partout dans ce pays mhm. et ça il faut préparer quelque chose pour ces jeune la Mmh. Il faut essayer de trouver des solutions pour ces jeunes la Nous, quand on fait des appels pour des formations pour, que avec Africulture, le nombre de, de, de, de demandes là qu'on reçoit, franchement, dañuy tiital dañuy tiital quoi. Mhm. parce que Africulture ab association bu ndaw la boo xam ni dëgg yàlla euh, dañuy góorgóorlu. donc jeunes yi espoir bi ñu am ci africulture ça veut dire que ni ces gens là ils veulent faire quelque chose. te ñun mënuñu mun à la bu ñu ci jëlee plus de vingt cinq Sénégal par exemple c' est vingt cinq personnes. Mm. alors que tu reçois plus de je ne sais pas euh, xaw ma ñaata demande da ngay sélectionné sélectionné après ñooñu tey def nañ demande jàllul ñu dem feneen jàllul suba ñu gën a toog après mooy li ma wax rek yaa ngi togg ay bombe à retardement. tu ça. on crée des frustrés dans ce mm. pays et à la limite on voit les conséquences nga mm-hmm. wax na léegi ci ci jeunes yi ci loolu sax la ñuy wàcc par rapport mm. à la musique mm. rawatina li nga xam ne mooy hip on voit aussi tamit pas mal de jeunes qui ont su émerger génn pour pour pour être pratiquement comme on dit ce fameux débat entre les old school et les new school donc par rapport à ça on a on a on vu nan nga gisee tey li nga xam ni pratiquement mooy hip-hop bi fi mu toll nii tey euh, fi mu euh, tey jii nii euh, buñ koy buñ koy buñ ciy wax. dañuy wax si ñaari fànn. peut-être peut-être les gens s'attardent si old school. old school ça va toujours exister. parce que terme yooyu xewewul ci booy ba hip hop juddoo la old school ak new school am parce que tout le temps y aura des old school et des new school. boy yi demain ils seront des old school. ak ci secteur yëpp sax voilà y aura des new school dans la politique. dañ koy gis ça est-ce que ça veut dire que ni euh, voilà euh, ma ma ma mag mag ñi amuñu amuñu amuñu lu ñuy xalaat ba léegi wala amuñu ñu njariñ réew mi ba léegi non c'est pas du ay débat quoi loolu loolu sant yàlla la parce que ñi xamul ñooy wax loolu mais ñun ñi xam dëgg hip hop bi les gens quand on démarré ils disaient que ni lii feu de paille la day romb rek jàll effet benn effet kii la quoi phénomène kii bu nga xam nu ñu ko tuddee woon buy jàll la quoi. Mhm. benn affaire bu xew la rek day jàll dem. def na trente ans def na deux alternance def na ay nit yu bari même yoo ñoo xam ni tey nekkatuñ ci secteur hip hop bi ñu ngi ci yeneen secteur dans la presse ci politique walla ci leneen. Mhm. hip hop bi moo leen forge donc ñuy wax loolu dañu xamul walla mais ñun tey dañuy sant yàlla bu ñu amee ab. quatrième xaw ma ñaateelu génération mais ay new school yu téye flambeau bi ba léegi mm-hmm. léegi nag ñoom nañu xam sas bi ñu am parce que hip hop bi daa am fu mu jógee ba ñëw si seen loxo waru la mujjee si ñoom wala waru la yàqoo si ñoom parce que hip hop bi ñun liñ doon ñaan mooy ay nit ay jeunes juddu fekk fi hip hop seen màgg ak moom dem ba koy def mm-hmm. parce que ñun dañu ñëw fekk ñu fi daal ça n'existait pas tey loolu am na am nañ possibilité def ko métier gàllankoor yañ doon am pour mën a def hip hop ñoom amatuñ ko parce que y' a tellement d' exemples de de groupes ou d' yoo xam ne ci hip hop bi yàlla suturaal lañ leen ba am na fu ñu egg tey. Mhm. am na fu ñu leen teg ci réew am nañ ko ñun fekk ñu fi woon loolu donc tey possibilité bi ñu am pour ñëw def hip hop. sans am ay yenn gàllankoor au niveau de leur famille déjà pour commencer. Mm. bareetul maintenant du caaxaan waxoon nañ leen rab du fo boo ko defee fo nag waaw fo moom fo la. mais boo ko defee métier mën nga ci dund correctement te mën na la yóbbu force sut sax fi nga xalaat ne war nga fa mën a egg.